juróom-ñaareelu année bi bi mooy juróom-ñaareelu année bi euh, nga xam ne chaque fois su màggal gi jege jegesee trois semaines avant président Abdoulaye Sylla danaan ne ñu arrêté quasiment activité yëpp ni ñuy garde rek mooy yi nga xam ne mën mënta ñàkk parce que dañu am ay engagement avec dans des dans des marchés publics engagement yooyu dinañ ko respecter boo amee ay contraintes mais lépp lu ñu mën a arrêté dañ koy arrêté par principe ak ci ngëm-ngëmam jël matériel entreprise bi ñu war a soxla fii yëpp ñu jébal ko sañ Touba donc mooy bi mooy euh, septième anne bi juróom-ñaar année bi man suñu borom suturaal ma mooy ñeenteelu année bi man ma am possibilité diriger ko à chaque fois dañuy ñëw seet si euh, xalif bi fi nekk euh, sëñ Mountakha nekk sëñ Touba set si ko jébbal ko matériel bi ñaan ko ndigal ne ko ni ko président Abdoulaye Sylla di defee sept ans yi passé yëpp ren amaat na yéene jël l'ensemble matériel bi disponible ak collaborateurs yi ñëw yéen xool ci lan lañ leen mën a jàppale. donc ren macha suñ suñu borom suturaal ñu def ko chaque année pendant pendant deux semaines et ci loolu dañuy indi ay camion ak ay engins yoo xam ne bu ñu ñëwee sëñ Mountakha daf ñuy boole ak sëñ Cheikh Abdou Latif nga xam ne moo yor lépp luy set euh, biir Touba. sëñ Cheikh Abdou dañuy jël ñu jox ko un ingénieur ak tous les opérateurs nécessaires et tout le matériel ñëw jébal ko ko ñun duñ ci amati benn kàddu matériel bi moomatuñ ko. e à partir de là Latif mooy xool euh, day jafe parce que gis ngeen Touba ni mu màggee ak assainissement Touba ni mu ni mu mel mais moom mooy identifier fi nga xam ne mooy gën a soulager euh, pèlerins yi ñëw ak fi nga xam ne sëñ bi moo ko gën a yitteel mu jox ñu ay instruction suñu équipe dem yi dañuy pomper yi dañuy terrasser defaraat ay tali defaraat ci defaraat ci lu lu bari. mais loolu euh, je pense que yéen président Blay Sylla va beaucoup plus loin que ça moom doomu. doomu Touba la euh, yéenam dëgg neen il faut que en un moment ñu réfléchir véritablement pour assenir dëkk bu mel ni Touba loolu il faut vraiment ñu ñu réfléchir ci xëy na mu am ay kàngam yoo xam ne dañuy dem uti ji fonds yi et puis ñu appliquer foofu préférence nationale su ñu kàngam yoo xam ne dem nañ uti ji fonds yi ñu jël doomu réew mi nga xam ne xarañ nañu Sénégal amul dëkk booy dem amul liggéey booy dem ci àdduna bi te fekk fa sénégalais c'est rare. ñun ñi ñëpp bu ñu xoolee am nañu ay mag ay rakk ay nijaay yoo xam ne fépp fu ñu dem ci ci ci dëkku tubaab yi di fa fekk sénégalais bu boobaa tamit ñu constituer benn genre consortium d'entreprises sénégalaises ñu toog jël une vue d'en haut de Touba depuis mosquée bi ak yoon yi jóge ci mosquée bi yëpp ak fi ñuy duggee ci dëkk bi ak fi ñuy génnee ci dëkk bi ñu xool peut-être année par année mu nekk peut-être benn plan de cinq à dix ans par année ñu jël ko benn par benn mbedd par mbedd mbedd bu ñu jaar ndox dootu fa taaw ci ilaa yawmi diin defar ko def fa assainissement et cetera dafay laaj méthodologie dafay laaj recul laajul xëccoo euh, mais loolu euh, je pense que du ñu jox sax conseil dañuy jox peut-être un navi euh, d'expert rek je pense que Touba noonu lañ ko war a songee.

ndox doo ko ne taxawal fii da naan ko jaaral fii donc tant que amuloo foo ko mën a jaarale mënuloo ko dara xëy na seen yéene la ñu waxoon moom laa doon wax sànq seen yéene ak peut-être ñàkk xarañte bi parfois ak euh, ñàkk expertise bi parfois ci yenn domaines yi ak parfois déclaration politique ak ak ak envie de bien faire mais assainir Touba dina laaj beaucoup d'années dina laaj de la méthodologie dina laaj tey et ñu jël ko confier ko à des entreprises sénégalaises ñu jël comme je disais un consortium boo xam ne xaalis la uti wuti ça va demander beaucoup d' argent consortium ñooñu dañuy wuti ji des capitaux ñu jël beneen eh ay beneen consortium boo xam ne ñoom ñooy toog à partir de mosquée bi su sol tubaab bi ñëpp ñu wax ne tututur mosquée bi ndox bu bari la donc loolu dafa laaj xarañte bu doy waar ñu defar tali yi defar ci assainissement et ay Sénégalais ñoo koy defar un peu partout dans le monde donc euh, loolu loolu war a mën a lu war a mën a war a mën a nekk mais dafa am benn message mu ci profité di passé parce que durant euh, bi ñuy bi ñuy defar euh, ci travaux yi suñu borom daf ñu suturaal université euh, Cheikh Al Khadim bi ça fait trois ans depuis le début ko commencé tabax Ecotra mooy terrasse lépp ci biir mu bokk ci bokk ci addiya bi récemment bi ñëwee liggéey bi bari na tellement ñu ne ñu ren daal barkeelu leen ci rek li ci des xëy na il faut ñu réfléchir xool nan lañ koy defee un marché ngeen ñëw peut-être def ko comme un marché normal ñu fay leen et cetera waaw euh, xëy na man en tant que DG en tant que chef d'entreprise da ngay da ngay da xaw kontaan ñu demaat ci beneen yoon wetu sàmm ñu wax ñu la même chose ne ñu fi liggéey bi bari na bari boo xam ne defal leen ñu rek ba oto yi mën a jaar après xëy na sax ñu xool nan ngeen ci mën a ñëw jàppee ci ci liggéey bi ci fekkee am na marché wala dara ma kontaan ci trop. bi ma demee di rendre compte le le le le président Abdoulaye Sylla ma ne ko ah président peut-être am na ay opportunité à Touba. Euh, ndax li ñu fa doon def nee nañ liggéey bi bari na de sorte que nañ barkeelu rek après li ci des ñu xool nag marché la euh, donc dama doon naan autorisation ñu xool ndax mën nañ yóbbu équipe yi ñu creuser ko mais euh, je pense que pour la première fois mu élever la voix vis-à-vis de man mu élever la voix bu du façon bu dëgër ne man Assane tant que maa ngi dund du ma mës a jox facture sëñ Touba loolu mu wax mu ne ma jamais fii dëkku mel ni Touba ci lu mu mënti doon du ma jël facture du ko jox di ko jox sëñ Touba lépp lu ñu def ci dëkk bi su ma ko mënee ci xaalis ak ci xarañte dinaa ñoo def ko addiya suñ ko mënul ñu bàyyi xëy na ñeneen ñeneen def ko mais jamais bu la fa kenn wax waxu marché bu fa yóbbu kenn bu leen fa def dara parce que man jamais sama giiru dund dinaa jox facture sëñ Touba donc pour pour la philosophie philosophie